mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi de Zahra Iyane Thiam moom nag daal di nay woo gouvernement bi ngir nag ñu daal di teg ab livre boo xam ni dañ cay teg lu jëm ci seen ay bëgg-bëgg ak mbëbët yi nga xam ni am nañu ko ci projet bi nga xam ni nag jaay nañu ko Sénégalais yi ba ñu jënd ko moom mi fi nekkoon nag njiitu ACPEX daal di nay xamal Bassirou Diomaye Diakhar fay ak Ousmane Sonko ni dañoo war a rek fësal ab livre boo xam ne nag dañ cee bind lépp loo xam ne dafa aajo ci li ñu war a def nag ci réew mi ginnaaw ay projet ak lépp loo xam ni dafa jëm nag ci lu koy doxal gën koo suqali ndax xam na ni lu jëm ci bànqaas yooyee taxawaay bi mooy dem rek ca bitim réew wuti ay partenaire ci loolee te askan wi sax xam nañu tam ci loolu la ñuy jokku ngir bu ko defee ñu mën a doxal suñu ay mbir kàddu yi ma ngi ko yëkkati ca page Facebook am moom mi fi nekkoon njiitu ASEPEX dolli si itam di wax ni état moom continuité rek maanaam dañ koy wëyal li fi nekkoon rek la ñuy yeggali tax na mu ni kon yeneen yi nga xam ne itam nekk na fi muy ay réalisation askan wi am nañ ci rek waxtaan boo xam ni mën nañ ko cee def ginnaaw projet yi nga xam ni itam gis nañu ko jeexital bi nekk itam rek ñu mën koo doxal lépp nag jëm eh, ci wàllu nag PSE muy li nga xam ne njiitu réew tegoon na ko fi ngir nag doxal réew mi ndax boo xoolee BRT bi tey ji ma ngay dem di ñëw ak lu jëm eh, ci lépp loo xam ne rek dafa jëm eh, ci wàllu dem bekk dikk bi mu ñu gën koo ñoŋal fii ci Sénégal keneen itam daal di nay sàkku ci njiitu réew mu senegal mi di Bassirou Diomaye jaxaar fay ngir nag mu fësal rapport 94 bu inspection générale d'État IGE eh, bu nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 2012 ci mbiru Franck Timis ak ki nga xam ni moo ko signé di Gallo Samb ak Omar Sarr maître Moussa Sarr moo xam xamle loolee moom nag mu jàpp ni kon njiitu réew mu Sénégal mi loolee da ko war a fësal ba ñëpp xam ko ci loolee sax la koy daal di bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne rek moom lañu jot ci rapport nag ak Cour des comptes bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey rek moom maître Moussa Sarr mu ni kon mbir mi dañ ko war a xamale daal di koy fësal ba ñëpp rek gis ko te booba jàpp na ni kon mag yi Sall kenn dootu ko diggati benn yoon mu yëkkati ay kàddu fii ci Sénégal ak ñamu àndal ndax jàpp mbir mi te dañ leen rek teg ci yoon mu jàpp ni itam rapport bi kon bu génnee ñu bare rek danañu tapp nag seen uh, gémmiñ jàpp ni nag loolee kon moo am rek te itam lu am la kenn rek waxu ko fenn foo xam ne nag dañ koy jël te wóoru leen ndax lu ñu gëstu la lu ñu ba seetaan la xam ni nag dañu war a fësal mbir mi mu leer naan ñi te wàllu njunjaat kese rek moo nekk ci mbir mi tax na mu ni uh, fi mu nekk ni nag décret bi dafa war a wàcc te képp koo xam ne laale na ci itam ñu daal di dal sa kaw mu jàpp ni nag fi mu nekk nii moom mag Macky Sall lépp loo xam ni moom la doon def jëm ci wàllu trahison maanaam rek di war nit ñi kon war na mën a feeñ ginnaaw li nga xam ni def na ko te mu fës nag ñu gis ko muy ñaari bloc yi nga xam ni nag jël na ko benn bi nekk ca Saint-Louis offshore ak ba nekk ca Kayor Kayar offshore.